على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo di topp seen télévision Moustikh TV ñu ngi leen di nuyu bu bare bari di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla heure bu ñu yëkkatee suñu kàddu mu fekk leen ci jàmm di leen ndokkeel bu baax a baax waaye di leen ñaanal jàmm ci weer bi nga xamante ne mooy weeru shahru ramadan mubarak bi nga xam ne mooy weer bi waaja a teru ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa mu may ñu fekkee ko te tal ko woor ko ci jàmm woor ko ci salaam àndandoo ko mu nangul ñu bépp jaamu yàlla boo xam ne def nañ ko ci barkeel ko te dëpp nañu waaye may ñu tamit ñu fekkee li nga xamante ne mooy laylatul ñu ngi ñëw ak yéen suñu juróom-ñaareelu numéro muy tudd muy askar ñu nekk ba tey ci bunt bi nga xamante ne moom mooy bunt booy tëdd waaja nelaw li nga xamante ne moom ngay wax xam ngeen ne bii passé ci juróom-benneelu numéro bi waxoon nañ li nga xamante ne mooy booy tëdd li ngay def tàmbali ba yemoon ci fi nga xam ne mooy ayatul kursi yi ak lañ ca waxoon yonent bi sallallahu alayhi sallam di jàngal ci ba tey booy tëdd ñaari aaya yoo xamante ne ñoom ñoo tëj suuratul baqara mu nekk ñaari aaya yu am solo yoo xam ne waxuma sax ci wàllu tëdd waaye ni ayatul kursi yi amee njëriñ moom it noonu la amee li nga xamante ne ñoom ñooy njëriñ gi ñu am ndax waxuma dara sax waaye làmboo gi nga xamante ne moom la làmboo ay ñaar yu am solo yoo xamante ne képp ku koy faral sax di wax borom bi tabaaraka wa taala dina bari ay njuumte loo yëg ak loo yëgul loo xamante ne daf la ko ci baal comme ni ko aal aay rek di firee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne bu fekkee ne ñëw nga tëdd ci sa lal ba def li nga xamante ne moom lañu waxoon ne mooy suratul ixlaas falaqi at naas ba def li nga xamante ne moom mooy ayatul kursi mi ngi jàngale li nga xamante ne moom mooy amana rasul ku ko jàng ci guddi rek ñaari aay yooyu mën na la doy muy amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi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 nga xam ne ñaari aayaat ci yooyu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo tëj suratul baqara am njëriñ goo xamante ne njëriñ yu am solo la hadis boobu mu ne buxaari yu ak muslim ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo yonente bi sallallahu